ayib dafe euh, mujj naa dem xam nga moom du tàyyi mi ngi noonu ayib dafe daal bi mu demee ci li nga xam ne mooy ca euh, euh, démb ca ndaje mi nga xam ne daje gi mu waroon na daje ak waa Sénat dafaa dem ñu ni ko nag wax dëgg yàlla moom fii moom duñ la dalal ndax ka fi nekkoon war laa recevoir muy directeur ba jële nañ ko fi xam ne nag mbir noonu lay demee bu dee da amoon ay acte ngir muy concerné kenn kook ñu jëlee ko fa sa dossier boobu dafay toog xaar moom ayib dafe daal foofu la mujj. waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax. ayib la waaw. bisimilah. waaw ñu ngi koy rafetlu bu baax rek noonu la. ñoom dañoo nekk ci lu ñu nekk. xam li nekk mooy lan. te amuñu si ragal amuñu si tiit faaliwuñ ci kenn. ñoom ñoom. maanaam ñoom ayib def. déedéet moom moom xamagut ba la ba léegi lu xew ndax moom ba léegi mu ngi koy teg ci yoon di dem di naxanteeg ñoom. te affaire du affaire yi naxante daa ñëw ñu ne ko lii saa yi lii moo mën a xew bi mu leen sonalee ñu ne ko saa yi duñu la mën a recevoir mu jeex. waaw loolu non kooku war a recevoir. Hmm. xam nga démb la fa dem. waaw hmm. waroon moom. Hmm. directeur mu dem ñu ne ko war la waroon a recevoir. dàq nañ ko dàq googu yi nag dañ naan jëlee nañ ko fa. loolu laa la wax mooy li mën a ne sant yàlla la ndax ki nga xamante ni moo leen di defloo mooy fal mooy folli moom xam na li mu bëgg ca ma nga ca xaj na bu ko fa bàyyi woon tey bu ñëwee mën na ko recevoir te bëggut loolu mu jëlee ko fa te keneen ki fa ñëwee du ñoom dañoo war a xool beneen stratégie buñ teg bu budut maslaa gii ñuy maslaa ka dem ak raaraayal ak jënd ay café Touba yooyu di naan di taxaw di cog co coomaaytu di xaar naan léegi ñu ubbeeku ubbeeku ñu am na ko romb nii léegi solo kos xaj na mooy tijjeeg nañ xaar ba xam dinañ ñu woo yooyu lijjantiwul dara. loolu lu ko kii yor ay këyit ak di ko teg si yooyu lijjantiwul dara ay këyit bii lijjantiwul dara président Macky Sall danañ wax lii laay def lii lan ngeen def ñu ne ko ñun xaar ñu xoole li yoon santaane mu leen li yoon santaane bi ngeen ko xoolee yoon ngeen fiy fekk te yoon maa leen jiite ñoom nañ dem wax ak président Macky Sall direct. waaw loolu ñu ngi ci. déedéet waxuñu moom direct de ay ay ay dafee ay. nangam nangam waaye léegi yow nee nga kay nañ bàyyi maslaa lu ñuy def maslaa kay day fekk ñu waxtaan lu ñuy def kon. ah léegi ñoom nañ jéem a xoolaat nu ñu def rek nañ ko xoolal seen bopp xalaatal ko seen bopp waaye lii ñuy def ni ajutum ngooñ mosuñu si am ndam président Macky Sall dama leen wax rek ba mu déparé ci mbirum Sonko mi ba léegi hmm. day def benn action ñu ni lii du yoon mu seetaan leen ñu ne du yoon yoon mu jàllaat si beneen bañ ne woon du yoon duñ ko lijjanti dañ koy fay bàyyi booba acte na dugg na ñëwaat si bii fekk si ko ni ko bii du yoon bii du yoon bii du yoon mu bàyyi leen demaat beneen booba dugg na ñu bii du yoon ba mu tàmbalee ba léegi nag vitesse bu dugg na vitesse bu dugg gars naan vitesse première bi du yoon première bi du yoon mu def deuxième bàyyi leen sa première ñu naan deuxième bi du yoon deuxième mu lonk troisième léegi nag am nga da ngay dem nga téye pneu yi téye pneu yi bu lonkee première bi dugg wala nga dindi boîte bi rek da laa si xam waaye boîte bi moom fii mi ngi si moom day dugal rek di dem yoonam ku am fulla la si. yaay da nga wax ji nag nañ wekki boîte bi kay waaye waaye bu rek du dem. am na fulla de ñoom fa lañ toog di xool vitesse yi. du yoon rek lañuy wax saa bu ñu nee du yoon mu am ca ndam jàll ca leneen ah nañ xool leneen nuñ def waay alaaji Euh, Ayib Daffé de moom lañ naan tonton Ayib dafe ndaje mi waroon a am ak euh, njiital Sénat bi dem nañu ni ko nag wax dëgg yàlla ki la waroon a recevoir daal. ay la yéwén kenn ba ñu laa recevoir nag mais wax dëgg yàlla ki la waroon a recevoir nekkatu fi nag. Mm-hmm. président Sall jëlee ko fa. Mm-hmm. waa xam nga Assane moom. Mm. xam nga saa yi la mécanicien di wax na la. Mm. vitesse bi nga dugal du yoon. Mm. waaw nga dem ca beneen mu ne la boobu it du yoon. <laughs> fa jëm baaxul. nga dem ca beneen bu la du yoon. te mécanicien moo bii du yoon yow ngay dugal. di nga yegg foo xam ne. teel ngay dégg. di nga yegg foo dugal vitesse. ñun la déet ngay dugal rek. di yegg foo xam ne Assane. li ah. des de. sa problème mooy a <laughs> ah, <laughs> da nga xam ne dootul génn. lañ la doon wax naan la loolu du yoon. yaa ngi dégg <laughs> war nga ko ah. war nga ko bàyyi xel bu baax a baax. du dugg génn wax nga dëgg de du dugg génn. comprendre nga comme comme que ñu ngi ci vitesse. Mm. mais xam nga asa sooy bu. alaaji lii am solo ci euh, mbir yi mooy. Mm. Euh, da xool rek. man damay jàpp ni parfois lépp loo xamante ni damay jàpp ni nit ñi ñu bari dañuy jàpp ni defet la man wax dëgg fa yàlla dama ci am ak warool nit ñuy lu baree baree bari du défaite reprene saay gars yi di ma wax naan ma euh, da ngay nelawloo gars yi hmm. mais wallaay li may ci wax yëpp ngëm-ngëm la boo xam ne dama ko hmm. ci euh, faral di am hmm. parce que damay gëm ni euh, saa yu ñuy dem Euh, maanaam dafa mel ni niir yi muur jant bi mm-hmm. day gën jant bi day gën di fenk mm-hmm. niir yi di gën a nëbb di nëbb waaw maanaam bi ñuy soog a tàmbali mm. dañoo nekkoon ci lëndëm ok lañ duggoon maanaam mu mel ni dañoo nekk ci guddi kenn xamul xew am na tuuti ñoo doon gis ñu ci bari gisuñu ci mais ni ñuy gën di dem rek ñi gisutoon ñëpp ñu ngi gis da ngay dox dama jàgg dajeeg nit mu ne la non sa waaye nag li ngeen doon wax dëgg la de. Mm-hmm. non mais vraiment yéen nekk gis nga loolu. Mm-hmm. mooy nit ñaa ngi génn ci lëndam di tàbbi ci leer. d'accord parce que am na lu bari loo xam ne moo nekkoon ci environnement bi loo xam ne ak lëndam la lu ñu waxoon nit ñi ne lii ak leer la. ne leen lii mooy leer gi lee mooy lëndam. Mm-hmm. waaye nu temps bi di gën di demee rek. muy gën a fes d'accord ñuy gën a xam kii mooy kan ak kii mooy kan parce que li coow li bari yëpp Sénégal li coow li bari yëpp yàlla dafa def lenn ñaar ñooy ñu fi ne muy président Macky Sall mi ñu dénk réew mi ak Ousmane Sonko ci nit ñi foofu la ñu focus. Mhm. liñ ñu gëmloo woon ci président Ousmane Sonko yëpp tanga baa weddi. ñu ngi gën a gis hmm. ay mbiram ay mbiram di gën a leer ci ñun. ñu bari ñoo xamante ne bi dañu nekkoon ak moom te gëmuñu ko gis nga ni ñuy raxasoo ñi ngi gën di ko sori. Mm-hmm. moom mi ngi gën di ànd ak ay sénégalais yoo xamante ne bi ñëpp jàpp nañ ñi ñii ñi ngi ci leer. Mm-hmm. ñële ñooy beneen côté bi. te lii bu xewul woon kon yii bu xewut. du ñu du mën a xam lële. maanaam acte bu président Macky Sall teg rek. liñ ciy gis li maanaam li ñuy gis ci mbir mi mhm. li ñu li ñuy gis ci moom am na ñu bari ñoo xamante ni bi tey dañuy wax ne saa yi nag mosuma séentu ni war naa def lu mel nii parce que président Macky Sall na bi dafa am lu ko Sénégalais yi jàppee woon xam nga lan lañ ko jàppee woon mhm. dañu ko jàppee wax dëgg fa yàlla dafa am crédibilité boo xam ne da ko amoon maanaam ku yaru dal mhm. jaay nañ ñu loolu président Macky Sall loo ko mën di wax ci lu ñaaw moom du wax lu ñaaw du def lii du def lii. Mhm. loolu mooy li nga xamante ni bi moom la ñu jaay. Mhm. ku yaru la ku dal la. Mhm. loolu nag du luy xëy rek dañ ci benn bis. mu ñëw di ñu wax ay droit respecter leen loi yeeg et cetera. tey jii mi ngi ne fang. ba fi mu toll nii Assane li nga wax ne li nga mën mu jeex leer na mooy que ni. Mhm. lii nga xamante ni bii moom mi ngi ci lim bëgg. waaw li mu bëgg nag que mu nekk lu waa ak mu bañ a nekk loi maanaam li mu bëgg moom dina ko am ci nu mu ko mën a amee. Mhm. pendant ce temps nag mi ngi ñuy xamal boppam. loolu mooy li nga xamante ne bii mooy li kii. Mhm. man dama jàpp ni. actuellement jéego yi muy teg. yu baaxul ci moom la lii xew. du ci Ousmane Sonko la baaxul mais ci moom la baaxul. Ah, man li muy teg yëpp man loolu laay gis quoi ci mbir mi. d'accord te noonu laa ko gëmee nag gëm naa ne li muy teg mii mu ngi ci njuumte gu rëy rëy rëy. d'accord que baaxul ci moom. d'accord.